yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag euh, tey euh, dañu séq waxtaan ak Serigne Moustapha Diakhaté xaadimul xadim euh, ñoo ko woo téléphone ngir nag mu àddu ci li nga xam ne gis nañ ko démb Touba ndax démb bi Sénégal di fubal ak Burkina Faso bu Sénégal dugalee da ngay jàpp sax ne Dakar nga nekk wala Louga nga nekk wala Saint-Louis nga nekk te Touba dëkk la boo xam ne bu spécial la bi match bi jeexee tamit gis nañ ne. Touba boo ko filmé woon tey filmé dakaar doo xam fan moo ci dakaar bu dee filmé woon jumaa ji liñ bëgg a wax foofu mooy démb dañoo gis na yuuxaloo yi bëri woon na euh, oto yi di klaxonné di def loo xam ne kilifa yu bari ñaawlu nañ ko te méngoowut ak dëkk bi euh, loolu moo tax ñu woo Serigne Moustapha Diakhaté xaadimul xadim ñëpp xam taxawaayam euh, sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum sëñ sëñ Abdou Khadre ñu lay nuyu yéen ak waa Baol info yëpp Baol TV yëpp waaw Serigne Moustapha comme ni ma ko waxee mm-hmm. sànq rek. Euh, Touba démb bi senegal di mm-hmm. fubal. diiru mm-hmm. match bi bu senegal dugalee yuuxaloo yi fépp. Euh, bi match bi jeexee tamit gis nañ ne ñii taal ay oto ñii di yuuxaloo fii euh, mu mel ni loolu bokkul ci wor may dëkk bi. waaw jërëjëf Serigne Abdou Khadre ci sa yitte ji nga jox xew-xew bi am ba tax nga jóg di ko naqarlu wala nga di ko leeral ngir ñi ci war a wax wax ci. ñu ci war a jëf-jëf mbir mi nag euh, day loo xam ne ni nga ko waxee xewul ndakaaru xewul feneen fudul biir Touba euh, li ñuy jëkk wax mooy ànd ci naqarlu gii nga koy naqarlu te saa su nekk ay ati ati at nuy wax ak nit ñi ci war may Touba démb ci mujj sëñ Abdou Khadre démb ab dëj bu ma demoon wër na yàlla ne bu fekkoon tey jëlul nañ wax ja teg ko da nga naan lii déggoon naa ko lu mel nii laa doon wax ci worma ji ñu war a jox Touba li ci am nag mooy euh, benn kilifa yi fi nekk yëpp rawatina Serigne Bassirou Abdou Khadir di porte parole ak ñi nga xam ni ñi ngi fi yëpp tey kilifa euh, dafa jot nun wax ngir sëñ bi euh, yëkkatiwaat kàddoom sax mën na ko bàyyi jaar maanaam dañoo war a waxaat déclaration boo xam ni ngir ginnaaw dañoo jëm ci final te football bi jeexagul nit ñi ku bëgg a seetaan football am réew lu muy def ku ca bokk di nga ko yéene di nga yéene mu am ndam di nga yéene réew ma am lu baax am lépp waaye nag dëkk bi ci boppam ni ko waxee baat bi leen teqale lépp mooy dafa spécial te loolu jëruñu di wax kenn maanaam ku fi dëkk ak ku fi dëkkul xam nga ni dëkk bi dafa am lu taxaw borom sanc ko waaye nag bala ñoo yëkkati sax di kàddu di àdduna ñi di leen fàttali lii ngor ak jom ci képp koo xam ne bàyyi nga fa sax maam dëkkoon jox sa bopp Sëriñ Tuubaa yaakaar ko topp ko bala ñëw kàddu ci rajo yi wala ci internet bi fenn yow yaa war a ànd ak sa conscience xam ne liggéey ngay def boo dee fukki at ak juróom dong nga am sax Serigne tubaab mi tax nga ñëw fi bëgg ko neexu ko te yaa ngi xotti war may dëkk bi te xotti war may dëkk bi nag lam mën a jur bari na lool ci ay safaan ci képp ku koy def ndax Serigne Mountakha fàttali na ko ba tey kon damaa yaakaar ni ñooy jëkk a interpellé mooy ñu dëkk ci dëkk bi bu dee gone yi seeni way jur ci ay kër la ñuy jógee balaa dimanche fati bala ñu koy egg kenn ku nekk xëy na lii dina egg fenn mais du am ñu egg ci ñoom nga woo sa kër artu leen li nga xam ne mooy Safinatoul Amane tam ak kuréel yi fi nekk yépp taxaw ci tem nun taxaw ci man ci laa nekk ngir li nga xamante ne bii mooy ñuy def di manifestation yi ku koy def nga dem ba dem génn dem ci àll ba nga defee ko foofu amaana jëmmi léegi la nga xam ne ànd caag euh, ñaanal li nag taxaw li loolu waaye jëmmi Touba daal li mu dëppal ñu jox ko te bañ fee nekk di manifester ndaxte bu fekkee dañoo dugal bii ñuy yuuxu ñu génn ñuy klaxonné dëkk bi mel ni dëkk boo xam dëkk Serigne Touba loolu lu ko gën a ñaaw gën ko yées amul ci kaw àdduna kon dañoo war a yëkkatiwaat balaa dimanche jot kaddu jóg ngir xam le ni sëriñ bi ci boppam xam la ni bu bëggul lenn kenn ku fi yëkkati benn kaddu bëggul kenn ku fi manifester bëggul kenn ko def lenn ku ko bëgg nag buy final bi la ci beneen dëkk nga génn Tuubaa dem ca Dakar wala nga manifester wala nga subir wala nga def li ngay def waaye dëkk bi ci boppam daal kenn waru fee nekk di def yenn yi rafetul te lii bu jàllee moom des na ci jóg ci yeneen jéego waaye nag ginnaaw dimanche dafa soriwu wax daa jot léegi balaa dimanche jot tey ñi ko dégg rek am na ñoo xam ne sax mën nañ ko fi ne génne ko duñ fi bokk sax waaye pour wane ni xool leen waa Touba liñ nekk loolu nag man sëñ Abdou Khadre laa ci gis. Hmm. lii ngay wax yàlla xamante ne bi yëgu ma ko woon. waaye lii nga def nag lu ko gën a rafet information ngir mbir mi jaral nu mu gën a gaawee maanaam loolu police sax da cee war a jóg gendarmerie war na cee bokk ñëpp ndax sëñ bi koo tere. dafa bokk ci nga xam ne dañ koy tere muy manifester wu ci lenn lu mën a doon waxatuma la ak manifester wu nag ci wàllu ay ba équipe nationale bu gañe wala dara ku ku nekk la nga la nga téye téye sa biir sa mbégte nga téye sa biir boo ko mënut a bañ manifester nag nga génn dem ci àll bi manifester ko fa waaye biir tubaab mu ngi ko bañ ko fay loolu wax ji leer nañ. waaw jërëjëf euh, Serigne Moustapha Diakhaté Khadimul Khadim ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm. jërëjëf jërëjëf.